askan wa yeewoo ca diwaanu jàmm gën si Cap Mbaaw ñoo génn seeni kër taxaw baare tali ba woto demul woto dikkul ñoom nag la ñu xamle moo di ne rek njiital réew mi Macky Sall jàppalewu leen ci dara ndax lépp leen sonal ba ci ndox mi bu tawee daal dañuy tàmbali nekk ci jafe ba nawet bi jeex way ndox mi di fa at bu jot nee nañu nag du weesu juróom-ñaari la ñuy may njiital réew fekk si wala si lu ñuy ñaxtu daañu rek jàll ci vitesse supérieure amal fi nag lu ñu dul fooge ba tax na daal nañu leen bàyyi xel ci image yi ngeen di gis nag nit ña dañoo mujj rek di wàcci woto ya di dox takk der ya sax teew nañu fa ngir wax ak ñoom waaye lànk nañu daal ne duñu bàyyi